seek ak ñoom waxtaan let's go. mi ngi noonu euh, ñëw nañ fii fekk fii benn waaye mu nga xam ne moom mooy yëngu ci wàllu euh, Jakarta dañu fas yéene moom dañu fas yéene rek euh, seek ak moom benn waxtaan sëñ bi nuyu naa la. soxna si ñuy ngi ziar. baa yaa ngi ci jàmm bu baax. waaw ñu ngi bu baax waaw. tur bi. man Ablaye Diop. Abdoulaye Diop tey ñëw fii biir Rufisque fekk la fi nga yor li nga xam ne moom mooy Jakarta ñu bëggoon a xam rek kañ nga commencé li nga xam ne moom mooy wàllu liggéey bi ci Jakarta bi. waaw moto moom yàgg naa ci quoi boo xoolee man Thiès sax laa njëkk a taxé moto comprendre nga mais bi mu ñibbisee fii ma continuer ko aussi parce que sincèrement bon dama daan jàng bàyyi jàng école yàgg na comprendre nga ma benn métier mais jàng naa dawal quoi mën naa dawal moto te gis naa si tamit loo xam ne ni vraiment mën naa ci téye quoi di ci yëngu loolu moom ji dugal daal franchement parle waaw moto moom ñu ngi ci sant yàlla bu baax comprendre parce que li ci ciy am ku nekk boo xëyee lu mu metti métti yàlla dina la may loo suturoo loo yóbbu sa kër wax dëgg yàlla loolu moom ku koy ku ko yore teg ko ci yoon doxee dëgg moom loolu di nga ko am waaw franchement parle parce que boo xoolee ñi di xëy di jaay oto yi di xëy di yor seen di yab seen client di dem waaw mais ñoom ñëpp ku si nekk loo yóbbu sa kër nga bëgg comprendre nga moto yi nag dara nekk dégg bari na coow bari na wax trop jagartaay jagartaay parce que li la yalla dogal bari senegal bari na jeune yo xamne ne boy franchement bu ñu yorul moto kon dina ñaaw trop quoi comprendre nga parce que da ngay gis boy, yu bari bu ñëk da ngay leen gis ci tatu koñ ñuy traîner di taxawalu di tek ay ataaye mais bi moto amé ba légui lolu da ngay gis boy, yi lu mu bon bon dina dem sen tante yi wala sen papa yi ñu fexé ba jënd leen ben moto ñu yor ko di liggéey bon li gëna bon nak moy nga yor sa moto di dund si incorrect wala di dawal ci dëkk bi lo xamni ni comprendre nga waaw man loolu moom may énervé parce que nit ki sooy dem bay liggéey li ngay liggéey da nga koy fonk ba pare fonk population bi parce que moto da nga ciy yóbbu mag da nga ciy yóbbu maire di nga des fois ma toog fi benn meer jaaxle guddi bu ñëwee du gis du am oto day ñëw sama doom waaw man de sama doom moto bii moom mais damay naxante moom te xam ne bëgg na dem man man maay naxante moom booy yóbbu ko tamit bu ma ko yóbbu naa ko xam parce que naa xam ne kii mag la xam ne ma koy dawalee njublang bi nga xamne tamit dañ koy gis ci euh, jakarta ni manam euh, da ngay gis ko xamne dañ koy jox dar pour mu yóbbu ko mais du ko yóbbu non yóbbu comme fan comme par exemple euh, ben tiak tiak wa yobante par exemple lolu mom lolu mom je suis pas d'accord lolu mom c'est incorrect quoi lolu mom ku ko def buñ la jappé sax dañ la wara tek ci yoon comprendre wa parce que lolu mom muy rafet lu deug du yoon quoi te et puis nit ki timit boy dem ba yoni yónni vraiment war nga mëna a am ay preuve ci mom nit ki boy dem ba koy jox yobante war nga am photocopie carte d'identité wala carte d'identité wala nga photo ko sa téléphone wala xam nga vraiment parce que tamit dëkk bi loolu moo ko laaj moto ñëpp ñëpp ñëpp nga ko yor mais du ñëpp a yem aussi comme oto mu mel rek oto ñëpp a nga yor mais ñëpp a yem ñi dawal kenn bokk ci jikko comprendre nga des dawal gis chauffeur oto yi dañuy koñe ndax pour ñoom borom moto yi dañuy jël seen xaalis dañuy dañuy lekk seen wërsëg mais nit ki nit ki sa wërsëg yow foo mënta nekk moom yow loolu da ngay lekk quoi da ngay yow yëpp client mag borom oto gis la sax di la koñe di la mbëkk te pourtant loolu dara jaru ko ñun ñëpp ñoo bokk moom bu wàccee këram la jëm man su ma wàcc sama kër laa jëm amaana su mën nañu sax di daje di bokk kon lépp rek war na mën a rafet yaatu comprendre nga dëkk bi tamit loi bi dëgg la moto yi dañ ko war a dafa war a am ay plaque mais loolu yëpp boo gisee bu demee tey jii di wut plaque balaa ngay am plaque yaa booy xolo waaw non c'est problème lay doon kon problème bi ci kan la exactement problème bi si ñuy joxe plaque yi la du si ñun temps boobu la bu doon da ngay dem léegi léegi léegi bu dee dangay fay sax lu ñu la wax nga dem fay léegi léegi jot say kayit léegi léegi monte sa moto mais kenn vraiment ñëpp bëgg nañ ko. léegi yow euh, lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay seetaan maanaam autorité yeeg yooyu noonu pour ñu jàpp nag gis nañ euh, maire bi tamit génnoon na ngir wax ne Jakarta ki maa ne dañuy génn fii ak yooyu noonu loolu noo koy jàngatee ak nan nga koy wax itamit. ñi nekk fii moom njiit yi moom wax dëgg yàlla amuñu problème baax nañ am nañ compréhension parce que buñ ko def buñ ko amul woon buñ baaxul woon amuñu woon compréhension duñ fa ne di liggéey nag policiers yi dal ci kaw moto yi loo gis pour man damay jàpp ne erreur moo tax parce que des nga gis benn booy bu mbëkk benn nit doo taxaw wane sa bopp dëggal sa bopp wala dara nga mbëkk nit daw wala nga ko par exemple noonu jël yëfi jàmbur daw comprends nga yooyu bu amee dañuy ramasse mooy wanal ramasse bi di am mais sans loolu da gis policiers sincèrement xam leen laa leen ñaan rek ñu comprendre xam ne lii liggéey la moo gën tamit ñu tey si moto jeunes yi booy yi gën a nekk si dëkk bi fii di fi indi ay problème comprendre nga wala di taxawal si bi amul boobaa du ko ñu arrangé ñun ñëpp. sëñ bi nuyu naa la. ça va ci loonee. baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax. tur bi ak sant bi. Arouna Thiam la. Arouna Thiam tane ñëwoon fii biir Rufisque euh, fekk leen fi euh, yéen ñi Jakarta maa ni ñu bëgg fas yéenee waxtaan ak yéen ñu bëggoon a xam rek depuis quand nga euh, nekk ci Jakarta Euh, man nag yàgg naa ci yàgguma ci parce que dama newoon fii di di lijjanti sama bopp comme ni góor ñi di def rek mais gis naa ni taxi jakartaay bi samay morom ñu ngi koy def te en plus tamit euh, ñu ngi ciy régler seen i bopp. parce que tamit maanaam temps bi dafa métti te comme que yàlla dogalee ñun ñu ngi ci nekk di liggéey di ci dàq suñu wërsëg mënoon nekk fii di mandi comme ni koy gars yi di waxee wala di agressé nangam ak nangam mais Sénégal bu Sénégal la nga xamul lan la nit ñi bëgg yow tey ñun bu ñu tukkee dugg ci gaal yi ñu ne booy nangam ak nangam. ñu ñu ñu nekk di ambulant ñu ne booy nangam ak nangam léegi man damay laajte man ñoom lan lañ bëgg ñun ñu def ñun lan lañ bëgg ñu def dañoo bëgg ñun ñu taxawaalu mais taxi bi ñuy def nii ñun dañuy liggéey parce que yóbbuñ la di la may dañ la yóbbu nga fay ñu te lan ñuy fay ci la ñuy jënd suñu moto moto bi cent moto boo xam quatre cent mille nga ko jëndee kon yow néew fi pour taxawaalu dëgg loolu dëgg quatre cent mille xaj na fu nekk mais dama ko jënd pour du ci liggéey di ci dàq sama wërsëg te bu ma xëyee tey lu mu bon bon bon bon bon même bu dee cinq mille francs bu ma ko ci amee mo mako ko sama sama de mo def journée maçon taxawaalu ma mais man nit ñi liñ bëgg la xamatul de wax dëgg yalla soxna ji xamatu sëñ bi nuyu na la. ma lay fay aja mi ngi non papa tay ñu ñëwoon fi nga xamne ne moy mooy euh, ñu fekk leen fi ñu bëggoon na xam rek euh, depuis quand nga dugg ci li nga xam ne mooy Jakarta bi di liggéey ci loolu. waaw euh, ki Jakarta ay mom ñun mom dañ see dugg ngir ngir baña def dara lu ñaaw waaw liggéey da mom moñu mom moom tax waaw parce que fii da ngay gis ño xamanteni ni ngay deg xeyunu xëyunu gontunu ñu jox len jakarta ba legi dañuy am changement waaw taxna tamit ñu beuri tamit ñi doon def sax dañoo baye def waaw franchement parle mom mais lena dal len am da ci lu ñu metti lena muy commissariat ngeej bi ni li ñu bëgg jobé ñun fi ni loolu mënul ne franchement loolu mënul ne fi lañuy fekk jakarta bu ñu jàpp iloo ñu laaj la keuyit nga gene sey keer ñu bàyyi la nga dem mais duñ ko def dañ lay jàpp ba pare naan laa ay 6000 francs waak gannaaw su ba ngay jot ak sa machine nag amaana sax nu muy sax demee sax sa machine suñ ko yóbbee jàppaal ak casque sax casque bi doo ko fa fekk man yóbbu neen sama jakarta fii ak casque bi ma demee fekk ma sama casque jël neen si sama jël naa sama machine gaare ko bundu commissariat ñu ne ko fat ma ñëw di laaj ñu ne ma xamuñu commissariat Tëngéej bi liggéey franchement parler moom liggéeyuñu quoi sonal ne ñu yàlla lakkal ne nu wécc ba pare nee nañ fii nii ku fi taxaw jakarta buñ buñ fi fekk dañ lay jàpp fii nii si juuti bi fii. noo koy jàngatee lool. mais ñun ñun ñun ñun ñun fii leen am ñun fii leen am fii leen juddoo fii leen yaroo ñoo ngi suñuy métier fii ñu ngi fi gis ñëpp ku si nekkaa ngi sa métier mais day affaire dafa am fu muy toll day dëgër sa machine nga mën a taal taxale parce que doomu góor góor rek nga mën a doon waaw am na yoo xamante nii tamit xam nga waaw doo ko def parce que si réew mii nga dëkk ñun nax yàqunu dëkk bi mais dañuy defar dëkk bi waaw fii leen dëkk ci dëkk bi soo dëkkee ci dëkk bi ndax da ngay ànd ak dëkk bi defar dëkk bi mais pas tamit commandant boo xamante ni ban ko faleek léegi yàggul muy perfiler gars yi nii tamit franchement moom sonn neen quoi sonn neen moom soo leen nu mënee jàppale moom ngeen jàppale nu si quoi. sëñ bi nuyu naa fay naa la soxna si. bàyyi ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax. Euh, tur bi. Cheikh Mbacke Ngom lañ koy woowee. Cheikh Mbacke Ngom tey ñëwoon fii fekk leen fi ngeen xam ne fi ngeen di euh, daane seen doole ñu fas yéene waxtaan ak yéen euh, depuis quand yow nga commencé def li nga xam mooy Jakarta man maanaam depuis quand nga nekk ci Jakarta yi. non Jakarta yàgguñ ci yàggu boobu noonu sax ndax ñun ay chauffeur lañ xam nga rek yoon wee metti rek ñu ñëw jënd Jakarta di si taaba taaba ndax xam na ni Sénégal actuellement nii dafa nekk en chantier mm-hmm. moo tax ñu waaye teewul ni wax dëgg yàlla ñu ciy faj ñu soxla quoi di si yóbbante dëkk ba lépp moom moom wax dëgg yàlla booy ñu ngi liggéey normal wax dëgg yàlla police yi rek ñoo ñu xaw a sonal si njàpp yi te buñ ñu waxoon réglementaire yi wax ñu dañuy fay trésor wala ñu ne ñu jóge leen fii kat ñu mën a xooli sax feneen waaye duñ ñu ko wax chaque jour dañuy ñëw di jàpp sonal ñu loolu rek moo ñu xaw a jaaxal quoi si liggéey bi actuellement nii est-ce que tamit yéen a ngi def li nga xam ne moom moo war loolu la yoon euh, tëral est-ce koy def tamit. mais Sénégal moom moom moom moom moom noonu la demee day am ñuy liggéey am ñuy raas ñun dañoo jóg pour liggéey yóbbu kër ga te ñëpp bokk ñu yem mbooloo noonu la da gis ñii dañoo jóg pour liggéey ñii dañoo jóg pour caaxaan si ñii dañoo ñëw pour yàq si moo tax waaye ñun ñu nekk fii nii mànkoo te ñu nangu ma jiitu leen ñoom ñëpp wax dëgg yàlla si liggéey lañ nekk incha allah bu soobee yàlla dinañ woote waat gën a taxawaat xolaat suñ bop ñun ñep ñu fas liggey ñu tok liggey ñu fas def nako sudul non nak ñu génne leen ci bañ set wecc loolu lañ bëgg. Ah, kon suma la déggé da ngeen am mel association bo xamné euh da ngeen ci botu dal waaw loolu lañ bëgg ndax il faut ñu botu ci lu melni élection yi mu ngi ñëw mhm. leader yi il faut ñu am ci ko xamné dañ ko jappalé jàppale mu mun ñoo jappalé mhm. ñun loolu lañ bëgg mhm. actuellement. mais tamit ñu gis né euh, amna ci si ñenn ñoo xamné euh manam bu ñu leen joxee maanaam yóbbante wala dara duñ ko joxi boroomam daal loolu tamit euh, noo koy jàngatee. mais loolu noonu loolu loolu sa bopp ngay sonal rek mm-hmm. ndax tey nit ku yëkkati mille jox la ko ne la ko yóbbul ma ko fii ngir bëgg nga doon cag-cagab livraison am la ndax mën naa mën naa dem tey wax ko kii kii kii ay xaritam loolu sonal sa bopp la rek ak yàqal sa bopp. mais loolu tamit yàq euh, milieu bi loolu moo tax ma ne la am na ñoo xam ne dañoo jóg pour liggéey si am na ñoo xam ne pour ñëw dañoo ñëw pour yàq si mm-hmm. am ñoo xam ne dañoo ñëw bëgguñu dara mm-hmm. ndax loolu si am na garage bi sax. da ngay jox sa yobante fi ak Casamance am emprunté bako jox ñu luufal ko ne reer na do ci man dara da ngay xam borom auto bi xam numéro auto bi ya may dégg jakarta ay na ngi ci def ñooñu da ngay sonal sa bop rek ndax loolu dula jëriñ dara mais tamit nak euh, gis nañ ni euh, bari na ci jakarta ay nek fi yëpp amul plaque lan mo waral loolu tamit mais loolu nak loolu loolu loolu comme tay préfet mo waroon a toog wala monsieur le maire ya may dégg ne jakartaa yëpp dañ ci def plaque ngeen di fay jé chaque fin du mois trésor kees fépp noonu la ñuy def ngeen di sol casque dagg assurance loolu bu ñu ko woote woon woo président yëpp président are yëpp ndax ñun bëgg nañoo liggéey quoi ndax ñoom boobu ba léegi woowuñu fenn dañoo bàyyi ñuy daw rek kalandoo la rek presque boo xool. yaa ngi dégg ndax bu ñu woowoon tey nañu kat dañoo bëgg chaque fin du mois jakarta yi di fay trésor bu dee 3000 francs ñu defal leen numéro plaque yaa may dégg bu dee dañoo bëgg am kuñ fi yebal ñu ne day leen sol am koo xam ne chaque jour arrêt bu nekk ñu teg fa kenn muy dagg 200 200 loolu deux mairie wala trésor loolu moom moo ñuy gënal kon jàpp yi dafa metti ndax dañ lay jàpp ngay fay amee ñaari moto wala ñetti moto da ngay sonn te da nga war di joxe añ reer ndékki waaw ak dépannage yeeg yooyu noonu. waaw loolu tamit day metti loolu ndax mais est-ce ngi bàyyi xel tamit euh, risque yi nga xam ne euh, Jakarta am na ko yéen a ngi takk ay casque wala yéen a ngi bàyyi xel daal bu baax a lool loolu lépp lépp déggoon ma képp kuy dawal si kaw télé bii nii. loolu da ko war a mën a jël protéger woo ko quoi ndax gis nga deux roues risque rek moo si nekk ah moto risque rek la chaque jour yàlla ñu suturaal chaque jour yàlla moo ñu suturaal dañuy xëy ba ngoon chaque jour yàlla moo ñu suturaal quoi. mi ngi noonu chaque jour yàlla moo leen suturaal mais tamit nag euh, gis nañ tamit maire bi maanaam maire bi nga xam ne euh, moo fi nekk moom tamit dafa leen bëgg a jëlee fii loolu tamit noo koy jàngatee. Ah, bu ko defee daf lu ñaaw di wax dëgg yàlla. Mhm. bu ko defee. def lu ñaaw ndax ñun moom nekku sàccuñu fennuñu suñ moto yi lañ am da dépasse lañ siy daw quoi dépasse rek lañ siy daw defuñu leneen loolu nekk si moto yi di taaba taaba moom moom loolu loolu loolu bu ko defee loolu du ñu gënal quoi nañu wax rek ni mu ko bëggee ñu defal ko ko noonu moo gën mu ñu fiy jëlee. Ah, mi ngi noonu sëñ bi ñu ngi lay jaajëfalaat tamit bu baax a baax. maa leen sant bu baax yéen di leen gërëm di rafetlu lii mm-hmm. waaw. merci beaucoup euh, ñoo ko euh, les fidèles téléspectateurs waaye tamit euh, les amis internautes tay nak ñu ngi woon biir Fisk ñu fi nga xamné fi la Jakarta Mane nek ngir waxtaan ak ñoom ci problème yi nga xam ne euh, ñu ngi koy jànkonteel mais gis nañ ne ñenn ñoo xam ne nee nañ euh, policiers yi dañ leen a sonal lool ñii nee nañ euh, bi bis bu leen jëlee fii nii dina leen yàqal lu bëri maanaam taux de chômage bi dana yokku lool sax kon dañ leen di ñaanal rek bu baax baax ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo jakkatamaan te xam ne ay ndaw lañ te dañoo ñëw pour daan seen dañoo ñëw pour liggéey ngir yóbbu seen ay kër kon nañ leen tamit bu baax baax loolu day nekk li nga xam ne lu war la waaye tamit di leen wax ne la yéen ñi ne yéen ñuy bàyyi xel tamit su site internet manam suñu ay plateforme digital euh, rawati na YouTube dem len ci commentaire yeen tamit ngeen defal nga moy sen commentaire ndax tamit ci ngeen bok ngeen jox ni li nga xamne moy sen mooy jox rendez-vous la semaine prochaine inshallah d'ici là portez-vous bien allez bye bye ciao ciao